bon juste pour yokk ci li ci li ci li Birahim mu wax motul sax daaw ñu ngi annoncé ñu ngi ñu ngi dund ñun ñëpp benn magistrat boo xam ni dafa faatu ci gàllu loocoo tout à fait mhm. xam nga loolu daanaka honte la ci Sénégal mhm. euh, bu fekkee mënuñu jël ci wàllu matuwaay ay euh, gilet de sauvetage yoo xam ne bu euh, gaal suuxee dinañu mën a musal seen bopp ba ay magistrat di traversé di faatu sax pose problème mhm. ci côté sécurité bu ñu koy wax fàtte nañu bëtanti bu yàgg parce que boo seetee ren Sénégal li mu am ci nit yu faatu ci accident ci kaw tali bi pratiquement musul am li ko sabab ay tali yu xat la li ko sabab indiscipline la li ko sabab nguur gu jëlul responsabilité am la euh, dañu amul ay mesures yu ñu jël après accident bu euh, cyclo bi euh, awal ci yoon bi man démb une heure une heure maa ngi dajeeg benn bus boo xam ni mu ngi mel ni mu ngi mel ni yu xumb yu jëkk yooyu c'est-à-dire que fépp mu nekk fa ay nekk ay lumière ba nga xam ni yow même yow miy moom doo gis bu baax def ci kanam ay lumière mu ngi daw une heure et quelque du matin mesure mën soo fay yooyu lan saa yi damay romb xam lu mu koy tuddee kii sapin de Noël c' est ça. mesures yi Mansour Faye yooyu ana fan la. Ndiaye Ndiaye yi ak kii camions yi comme sapin de Noël. c' ça dañuy jàkkaarloog yow seen làmp yi li ciy tàkk ak lañ ci yokk yow miy dawal boo moytuwul léegi nga am problème ci tali souvent ngay gis rek euh, ngay ngay aw ci yoon bu guddi gis gendarme yi monté ci kaw tali bi ci péage yi di téye oto yi comme veille Korité bi li ñu stationné ci ay ay ay bus. ci seen euh, péage bi nekk AIBD euh, non AIBD ëpp na trente bus euh, nga gis ni mesure bi ko waroon accompagner da ci àndul bu ma la arrêté man gendarme bi dinaa la tegal ay charte yow chauffeur bi nga xamante ni bii dafa am but bu tax ma arrêté la mooy nga noppalu mooy nga noppal sa xel mais continuer mel ni kuy def benn benn benn taaxuraan ci kenn du noppalu donc liñ doon liñ doon moytu dañuy mujj sóobu ci parce que bu 6 heures jotee ñu ñu leen mën ngeen a départ léegi li ñu raté woon ci guddi gi yëpp dañ koy tawaat donc noppee guñu pour xeex accident yi chaque année ñuy dund jafe-jafe yooyu donc euh, dañuy fàttaliku date bi noonu mais da ngay xam ne kilifa yi noppee guñu pour protéger nit ñi ci kaw tali bi protéger nit ñi ci kaw ci géej gi euh, ak yeneen ak yeneen yoo xam ne seen i ay responsabilité la malheureusement Euh, da ngay dem ba ci biir nga laaj ni lan moo tax émotion bi daleen leen gañe gañe woon ñu ngi doon wax wàllu pneu ni pneu yi baaxatul léegi dootu ñu importer ay pneu dañuy fexee jéem a trouver solution defar fii ay pneu bëgg démb taxi bi daw ba culbuté ci autoroute bi lan la pneu pneu moo tax mu moo éclaté mu dem ba culbuté ci kaw ci kaw autoroute bi c'est-à-dire que kilifa yi bu ñuy annoncé nit ñi dañuy foog nit ñi amuñu xel pour mën a xalaat dañu foog nit ñi mënuñoo noter ñoom li ñuy wax mais li ëpp émotion la ak politique mais politique sociale bi bàyyi xel ci dundu nit ñi dafa des caala boo jógee jam ñaajoo ba dem ba Kaolack ngay aw ci route nationale bi numéro un mais mënoo gëm ni am nañu état buy veille ci ay infrastructure di permettre ay centaines de voitures ñuy traverser tali bi chaque jour c'est inimaginable ñoom ku fa jaar di nga xam ne tali bii du tali ci réew boo xamante ni bëgg nga développer tali bu bon la di yàq oto tali bu xat la di siif doole chauffeur te ñoom gis nañu ko donc euh, noppee guñu pour trouver solution sécurité euh, ci accident yi am ci tali bi ak ci géej gi quoi malheureusement. Euh, ci accident yi xew ci mhm. lépp moo xam lu jëm ci wàllu napp géej yooyu yëpp koy wax sànq lépp mën nañu jàpp rek mbirum politique peut-être ci lañu tënku ci jafe-jafe yu bari ci réew mi ba lu ci bari duñ ko mën a saafara bu xewee. waaw xam nga <coughs> saafara dara ci Sénégal xam nga lu tax mu xaw a jafe. Mhm. mooy dañuy teg ay loi ay règlement signé président ñu de sax jël décret ñu ne la par exemple def nañ fi waxtaan parce que y a eu euh, beaucoup d'accidents la circulation lan lañ fi defoon fan yee passé benn euh, lu ñu woowee une grande messe ba xam ne ñëpp a ci toog chauffeur si euh, transporteurs yi euh, assurance yi les gouvernement bi ñi concerné pour lan nañu dañuy jël ay mesures ñaata mesures lañ fi waxoon ci lu jëm ci ak transport ñaata lañ ci appliqué y avait quoi 18 mesures. 23 23 mesures. 23 est-ce que appliqué nañ ci ñaar wala ñett. mais la ñu annoncé 6 la ñu annoncé moom la mais est-ce que appliqué nañ ci yenn. parce que après lan lañ wax ne non non c'est que xam tan tant qu'on aura toujours à l'esprit et dans nos comportement masla euh, grawul euh, nañu xaar nañu kii ça jamais mu changer parce que tout simplement. dañuy jël ay mesures bu dee dañuy xool kayit kese texte mesure loi décret kon lépp est normal mm-hmm. parce que li ñu naan dans le contenu tout est clair mm-hmm. mais est-ce que dans l'application mm-hmm. non <laughs> il y a malheureusement donc li valable ci lu xewoon bétante amoon na ay mesures euh, mais quelquefois xam lu nu ñuy di wax chaque fois mesure yu ñuy jël c'est plus pour euh, nit ñi xaw a noppi wala nit ñi jàpp ni gouvernement baa ngi liggéey et ça ça ne date pas de émotionnel rek hmm, euh, ko mën a waxee pour utiliser le terme adéquat mesure populiste lay doon ñoo xëy ne c'est pour satisfaire la masse les populations mais après qu'est-ce qu'on voit absolument pas grand-chose et ça ne date pas je le dis tout de suite de régime de 2012 à aujourd'hui mais avant également mais bateau le Joola c'est encore frais dans nos esprits bu ñu paree bateau le ñaata mesure lañ fi jël <clears throat> duñ jeex car rapide ci la gën a yokku nit ñi di yéeg fu nekk ñu naan marchepied kenn du fa taxaw bus yi dañuy kii mais aucun changement sur ce plan cest dire que dañ leen changé pendant quelques semaines hein émotion ba Mansour mais buñ ko weesoo bien on retourne au aux vieilles et mauvaises habitudes. malheureusement je pense que en fait euh, Thiala bu ma ko baalee je pense que malheur bi foofu la nekk par rapport à nos gouvernants euh, déjà bi comme yaa ngi koy wax sànq léegi euh, deux mille ko li nga xam ne moom moo xewoon ak batalo Joola donc Abetanti et après s'en est suivi d'autres maanaam amoon na amaat na yeneen yoo xamante ne yu Euh, par exemple Saint-Louis gis nañ fa li fa xewoon fan yooyu noonu c'est-à-dire en 2019 ñu gisoon exactement ay euh, ñoo xamante ne ay nappkat dem yóbbu seen gaal mais malheureusement mujj ñu ñibbisi parce que tout simplement comme ni nga ko waxee sànq gaal yi nekkul ay gaal yoo xamante ne peut-être mën nañu dem à des à à des euh, yoo xamante ne peut-être que ne voilà gaal yooyu mën na fa mën na fa tenir alors que malheureusement pour ñoom. Euh, bon comme ni ñu ko waxee euh, nit ki li nga miin le plus souvent moom moo lay faat parce que naa dañuy dem ba naagu ci yooyu noonu donc loolu c'est important à ce que à ce ñu ci bàyyi xel encore une fois encore une fois aussi di sensibiliser nii parce que état bi aussi dañ ko wax euh, sensibilisation ak li nga xamante ne moom mooy maanaam jël ay mesures loolu yëpp c'est c'est c'est bien beau mais applicabilité bi comme ni ko Birahim waxee et au-delà de ça aussi nañ ko nañ je que war nañu xool exactement qu'est-ce qui est à l'origine de cela lan moo tax à chaque fois ñu état yi euh, maanaam yi ni mel bu xewee ñuy soog a jóg euh, pour pour pour jël ay mesures alors que bien avant loolu waroon nañ peut-être réfléchir pour mën a euh, en tout cas anticiper li nga xamante moom mooy xew et que malheureusement mesures yooyu bu ñu ko jëlee le plus souvent applicabilité bi day doon problème aussi bien ci ñi nga xamante ñoom ñooy citoyens yi mais aussi bien poursuite bi nga xamante ne war na am ci ci mesures yooyu war nañ ci bàyyi xel bu baax. Cheikh euh, balaa ñu jeexal ci ci loolu des mesures yoo xam ne euh, dañu koy jël bu ñu fàttalikoo lu jëm ci wàllum accident yi depuis 2014 jëloon nañu fi ay ay ay ay mesures yoo xam ne ba léegi mën nañ ñu wax ni recrudescence euh, accident yi moom ba tey dañ koy gën di nemmeeku donc ci ci fànn woowu naka nga mën a gis ni peut-être moom la ñu war a doxee surtout que l'État saa bu yenn jéey amee rek ci ci ñoom la ñuy wëlbatiku te ñoom ñooy jël yenn mesures yi. dëgg la euh, li ngeen wax yëpp euh, mooy li nga xam ne nii moom la ñuy dund euh, man dafa am benn dafa am leen lu may fàttali dafa am séminaire ay séminaire yoo xam te ne nii dañ ko doon organiser mais séminaire yi dañ ko doon bokk ak ñi nga xam ne nii mooy suñuy mbokk yi nga xam ne ñoo nekk dans la sous-région mais j'ai eu un ami ivoirien euh, burkinabé mu ne ma gis tu sais Cheikh le Sénégal ñoo dàq concevoir bind. <laughs> mais Cheikh. Euh, euh, vous vous vous vous êtes les meilleurs avec les textes vous vous vous nous proposez des projets béton mais la réalisation mooy problème bi. et effectivement ñoom ils viennent ils quittent le pays pour venir ici c'est ça ñoom dañuy jóge seen dëkk yi ñëw fii Séné ñëw fii Sénégal mhm. bokk suñuy séminaire bokk ci suñuy colloque et cetera mhm. bu ñu bindee ñu ne waa këy fu mu nekk nii toutes les solutions sont sont sont sont, sont données mais malheureusement après da ngay gis ne du am réalisation du am suivi. et wax dëgg fa yàlla mooy laxisme bi nga xam ne nii moom la suñu gouvernement yi amee parce que mënuñu concevoir yow euh, situation am nga xalaat ci woo ci ay nit boromi xam-xam. woo ci ñi nga xam ne nii ñoom la concerné woo ci képp koo xamante ne nii takk nga ci ñu proposer la ay solution ba ngeen waxtaan desul lu dul application bi. ku ci nekk di xooli bët te man sax man dama li ma ci gis mooy c'est une fuite de responsabilité collective ah man c'est ce que je je loolu laa wa c'est c'est ça c'est une fuite de responsabilité collective boo xamante ne nii ku ci nekk wàll bi nga xam ne ah, moom nga am doxalee rek euh, euh, solution dafay am te kon su boobaa dinañu gën a mën a defaru man euh, du may du may ngàññi rek état gaam naam état moom mooy ki nga xam ne nii mooy central mooy mooy mooy centraliser les décisions moo war a euh, nekk ki nga xam ne nii mooy waaw c'est ça moo war a joxe euh, gars yi pour que ñu mën a farlu ci liggéey bi mais man damay gën a loo xel la les populations parce que aussi tamit qu'on se dise la vérité hmm. les états c'est nous qui les qui ñun ñoo leen fiy teg hmm. te kon état ni muy doxale à chaque fois c'est par rapport à ñun suñu comportement quotidien et tant que ñi ngi am ay comportement yoo xamante ne nii mënul ak mënul méngoo ak yenn décision état yi dafay jafe lool pour que état mën a doxal donc ñu ak état yëpp war nañ di ba gën a bàyyi xel di gën a jàppalante suñu biir mais aussi tamit euh, le changement de comportement lu war a primordial la fii Sénégal mm-hmm. il faut que ñu il faut que ñu ñu ñu ñu ñu gën a xoolaat suñu bopp il faut que ñu gën xoolaat ni ñuy doxalee il faut que ñu gën xoolaat ni ñuy taxawee pour que mën a wax dëgg fa yàlla euh, lépp loo xamante ne jéey la tamit am mu ñu ñu mën ko di ko éviter à chaque merci Cheikh ñu lay jaajëfal